tontot di leen fàttali ne yéen a ngi en direct sur euh, Mouhalim Info Mouhalim TV euh, ki ngeen toogal nii moom mooy euh, Mouhalim xam naa kaddu gi ngeen di dégg souvent mais jëmm ji du ngeen ko faral di di xàmmee waaye itam man ngeen woote ci 77 227 89 29 euh, joxe seen ay xalaat ci li nga xamante bi moom moo di euh, élection euh, législative résultat ak ci aju waaye sëñ Modou dañuy ñëw ci question bi nga xamante ne bi abordé abordé woon naa la ko tout à l'heure avant ñuy dem julli ji hmm. moom moo di expérience politique bu président Ousmane Sonko ndax ni mu def Tahirou Sarr noonu c'est-à-dire cokkas ko ak Tahirou ni ko xale yi joxe woon bopp ni ko ndaw ñi joxe woon bopp hmm. ak c'est-à-dire li li mu amoon ci réewum Sénégal mu cokkas ko noonu Tahirou Faye ay mbir xaw cee am ak yu Xarim euh, Bamba Diagne. Mhm. mas naa dégg mu wax dafa wax ne Ousmane Sonko. Mhm. ci politique ci réew mi. Mhm. politique noowul sax ak gaañe. da ngaa jàpp ne Ousmane Sonko lii mu am nii rek naam ma yàlla am na ci mais da jàpp ne rek maanaam suñu borom la neex rek mu jox ko li mu am nii daf koo ñafe. politiquement Sonko dafa pare. d'accord dafa am lu am lu am solo ci politicien. te moo koy moo koy yëg yëgal. muy discours. très bien Sonko discours am. discours am dafa fort dafa am solo mais aussi tamit fexe na ba sàmm kàddoom sàmm jëmmam ci kàddu ba nga xam ne. Mhm. chaque jour bi wax nit ñi dañ koy gëm. d'accord xam nga politiciens yi parfois dañuy yàqu bay wax Ousmane Sonko doo ko dégg mukk ñu wax yenn wax yi nga xam ne maanaam bu dee nagoo def itam bëriwul. mën nay di kara di tooñ ñi mais Sonko buy wax ak Sénégalais yi. lu mhm. dëgg leen di wax. te dafa sérieux te loolu xëy na sax ci élection présidentielle législative yi. Mhm. ku dem ba naan état a moo jiitu malgré ma loolu ku mel ne man ni mu communiqué dama wax ne man d'accord mu ci ni mu communiqué parce que moo incarné état mais ki jëmm Sonko Robert nga xam ne jëmm ji kii maanaam moom lu tirise daal boo xoolee ci yeneen côté yi xam ma dégg nga benn homme politique bu génn naan mhm. am naa ay résultats yu leer yu wax ne élection mhm. présidentielle élection législative gars yi rekk ay ñàkk <laughs> aussi am na ku dégg mu ne euh, jot nañu ay xabaar diggante palais ak euh, primature bi ñu jàppee Bougane mhm. daf doon bëgg a toj xam nga façon communication yooyu politicien bu ko def mhm. que sénégalais yi xaawatuñ ci yooyu nit hmm. sénégalais yi xaawatuñ politicien buy toog di wax ay rek maanaam wax yoo xam ne doo am benn argument hmm. Sonko nag da moom débat boobu dafa niwu mhm. Sonko en politique maa bëgg a jaxase rek <laughs> technicien a jaxase dara bëgg a jaxase Pape Djibril Fall tudd tur loxo ci écran bi dégg nga waar. en tout cas tudduma tur damaa wax rek pour analyser. Cheikh Bara dégg nga waar. mais Sonko. wala la wax Sonko nit ku dëggu la. Mhm. dama wax bi seet ne dëggu lu mën tamit doomu aadama. Mhm, bari na fi ñoo xam ne dëggu moo leen yontu sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. lan moo sa suy bi mu xëyee ne yàlla ba Seydina Abubakar. ci sakku ànd ak moom. fekkoon nañu ko tuddi ko as-Siddiq wala boo fekkoon nañu tudd ko al Amin. d'accord mais tamit as-Siddiq ku dëggu. sallallahu alayhi wa même waa Makka li ñu ko daan sonal sonal bi mu ko itam commencé woote nubbu wala ñu commencé sonal mais avant loolu ñëpp ko respecté ndax ay jikkoom d'accord il faut ñuy bàyyi xel trajectoire bi Ousmane Sonko jaar ba ak si fii très dafa nekkoon ci biir système bi d'accord mënoon faa dund mhm. ndax bu na waxee Amadou Ba très bien malgré yàgg na ci administration mhm. mën a am ay milliards mhm. Sonko nekk ci di liggéey ci administration fi mu nekkoon exemple da ngay ñëw ci groupe mel ne groupe Mouhalim rek pour leen war leen redressé ci wàllum fisc boo ñëwee gëstu gëstu su gis ne ah mhm. yow mi war ngaa fay état deux milliards mhm. exemple la pour nit ñi xam Sonko mhm. ak njubam il faut ñu bàyyi xel boobu yow su ma ñëwoon xam man maa ñëw man maay inspecteur impôt ko demal man la ñuy yebal maay dem di gëstu ñuy nit ñi su ma ñëwee li ma bind ci këy yi képp moo ko ma ñëw laaj la xaalis nga jox ma ma gëstu gëstu gëstu gëstu gis na yow amee nga état deux milliards amee nga état deux milliards Mhm. foofu su nekkoon ne parfois ci ak njub ak njubam. Eh, mel na ne am na woon ci ligne bi donc ñu jël ko xool réaction am salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ lay nuyu di la ziar yaa ngi en direct sur euh, Mouhalim Info am sa Touré. dégguma. am sa Touré am sa Touré. donc euh, da nga amoon ay xalaat jëme ci euh, waxtaan wi. waaw di ci kontaan rek xam na mhm. ah, di gërëm sëñ Mouhalim. Mhm, jërëjëf macha allah. Ah, maa bokk ci membre kii bi nag xam naa. membre groupe groupe whatsapp bi. mo Mouhalim Info waaw membre Mouhalim Info. waaw ci laa de. Ah, di ci kontaan di kontaan ci moom daal. macha allah jërëjëf jërëjëf ak taxawaayam bi laay wallaay. jërëjëf jërëjëf di ko sant di ko gërëm. Mm-hmm. surtout démb. Mm-hmm. ñu ñu ñu doon daal. Mm-hmm. di ko wax kontaan nañ ci lool. merci macha allah jërëjëf. wallaay. macha jërëjëf. di leen sant di leen gërëm bi jërëjëf ñu ngi lay donc man ngeen euh, def ni moom woote ci 77 227 89 29 joxe seen ay xalaat euh, ci li nga xamante ne bii moom moo di euh, waxtaan wi nga xamante ni ko jëmee ci élection législative yi fi li nga xamante ne moom moo di résultat officiel yi sëñ Modou. Ah, waaw waaw maa ngi woon ci compliment dama ni. Mhm. man mhm. di leeral. Mhm. mooy naa ñëw fekk la yow nga war a amee état 2 milliards. d' moom inspecteur li mu bind mooy compte. d'accord su ko neexee mu ne la. Mhm. bu fekkee ku jubadi la. Mhm. mu gis ne war ngaa fay état 2 milliards. Mhm. nga ne ku baax. léegi baal ñu rek seere ko. seere ko mooy au lieu may fay état 2 milliards. mais baal ma jox état 700000 700 millions wala 800 millions. léegi yow nga am 200 millions. d'accord imam ma war a fay état 2 milliards. mais la ku baax léegi nañ dagg affaire ci digg bi. léegi yow jëlal 100 millions yi. après nga nga bindal moom ma fay 800 millions. gis nga. xam loolu. ku jubati maanaam ku gëm alal jubati gu mag la sax ah, kay waaw te loolu tey jii maa ah. li may leer mooy ah. su ko defoon tey ko defal la ak suñu borom ngi te moom laa xam ci nit may wax bi seen na Ousmane Sonko mhm. euh, man jaaxal na ma ndax mhm. loolu est-ce que man mu xalli man jub googu naa fa mhm. est man suñu borom may na ma jub googu mooy nit proposé ma yenn ci alal ma mën koo muñ ndax sama borom ak sénégalais yi est que man loolu àgg fa man mii nga xam ne lu met métti métti maanaam dëgg la waaye am na yoo xam su ma sama cër mais dafa am loo xam ne yow man nga ko waaye est-ce que jikko jooyu jikko jooyu ñu ko suñu borom jox xam nga bu ñu jàpp ne jikko ju baax wala wala wàllu yu wala dara dafay nekk nga fekk ko xam da ngaa jàngi ji wala dara gis nga suñu borom la ñuy defar ab jàmm mm-hmm. jiitu nag juddoo dafa am jikko yoo xam ne ku suñu borom defal mm-hmm. xamal ne kii am na lu yàlla def ci namm ci moom d'accord ku mel noonu nga def loolu mm-hmm. nga jaar ku mel ne Serigne Boub jaar ci ku mel ne mbakk yi fay ay homme d'affaires la milliardaire yu demee milliardaire ñoom ñëpp ne Ousmane Sonko ku mas a ñëw ci yow di la redressé nga tiit mu dem ba mu yàgg mu xool ne waa assemblée ñoom Euh, dañuy fayeeku parce que 2 millions. Mm-hmm. député yi ay 1 million 300. 2 mm-hmm. millions dem ba 5 millions sax. Mm-hmm. ak indemnité indemnité boo ko ci boolee. mu gis na ñoom 1500 la ñuy fay. 1500 la ñuy fay am. mu di ko génn. ba dàq ko ci. korog bi ñu ko dàqee avocat kenn ci avocat même si Ousmane Sonko daf ko fekk tribunal. ne ko ndax xam nga dàq nañu. mu ne ko ah boobu mu ne ko mais bàyyi booy bàyyi nga xaalis. mu ne ko 85000 francs moo nekk sama sama compte banque SCBS. gis nga loolu daf naa dama koo jàpp. moom président Ousmane Sonko wallaay ne loolu la ko wax. ne ma bëgg génn xaalis jox ko mu ne ko non non du ko jël ko jël nga xam ne boo xoolee Ousmane askanu Sénégal. Mhm. ñoo ko tax a sommé. mais aussi Sénégal itam ñoo ko fayal ñoo ko dalal njukkal ndax moom bi mu jógee ci loolu dem élection législative ñu ko moo tax da wax bi seet ne euh, Ousmane Sonko moom toog di ko jéem a sikkal yomb na mais sikkal ku lu jafe la. malgré nag kon ni ma ko waxee nit la mhm. am na ay jikko ndax doomu aadama mën a gis ne day am ay positivité am ay négativité mais damay wax ne ay positivité mu ëpp hmm. a mais bu fekkoon ne dafa dem ba bu nga ko bëggee jàppe ko mat mhm. da bëgg a dugal kii loo xam ne loolu suñu borom la te ñëpp yàlla yi sax matuñu ku mel noonu nag jikko yooyu la am nit ñu bari bay du xool ñoom ba jàpp ko wala doon wax léegi mhm. am na ñoo xam ne dañu jàpp Sonko mais sur le plan dafa xool président Macky Sall jàng ko. xam président Macky Sall fi mu jaar ak ñawoon. Mhm. a commencé par par président Karim Wade. Mhm. a jaar ak Khalifa Sall. Mhm. mu gis ne président Macky Sall niwul koo xam ne ci daal ay loi daf koo tënk président Macky Sall ver loo ko mën a waxal yàlla moom lu mu masaana bëgg a def dana ko def. loolu moom ñëpp ah, bëgg a def xamul naan ay loi xam ne kii bara de fer rek moo mën a moo mën a def ak moom. mu xeex ak moom. yamala itam aussi fexe ba. président Macky Sall na fi jógee mooy li ñuy wax désintéressé gi nekk ci Ousmane Sonko. isa xam nga am isa xam nga ne désintéressé ci état dispositif la bokk. Hmm. Sonko tey jii bu doon kuy kuy calcul. Hmm. bu doon kuy calcul. Hmm. ku mel ne président Wade. à 2019. Abdou Karim Wade bokkul rek mu ne kon bokkul de élection yi. en réalité ndax président Wade kon tey moom Macky Sall moo ko ñor wala doomam moo ko ñor moom Sénégalais yi ñoo ko ñor wala doomam moo ko ngi gis. ñu ñëw élection législative moo yor doole ji moom ñëpp bëgg a mu def intercoalition. jaral ko mu sacrifier foo xam ne mënoon na faa nekk. ku mel ne tey jii bi ñu jël Barthélemy même ñu bokk ci Pastef ne d'accord ñoon hmm. maa dégg mu saa Sare wax ne damaa mas a toog ci benn plateau di wax ne d'accord ma ci man Khalifa Ababacar Sall mooy suñu candidat mu ma mu ne ma euh, bul yàq su li ñuy def mu ne ko man xam nga ñëpp ñooy participer de démocratie. Hmm. mu ko man d'accord yow mën ngaa am sa choix mais man xalaat ma xalaat mooy mu baaxul. dañuy wor mais Ousmane Sonko moom vraiment euh, ku gëm yàlla la mais mu bàyyi loolu gis nga mooy moom tey jii gis nga mën naa fi may yàgg gis nga ni mu def diggante boobu. Mm-hmm. fexe ba lijjanti teg mu jéem ko mu may mm-hmm. ndax mm, na ko bëggee woon demewul noonu mu moy mais aussi dafa sénéreux mooy moom mm-hmm. vraiment ku ku tabe la. présidentielle yi tey jii bu amee. bu amee ci réew mi na nga ko sant Ousmane Sonko bu ko neexoon du su ko neexoon ne bu ko président bu ko intérêt intérêt boobu taxoon a jub mhm. président Macky Sall mën na koo ñëw wax ko li mu koy wax saako ci moom ay mbir mhm. mu xam ne kat li mooy intérêt mu d'accord mhm. mais daf ne man dàqu élection sama jëm amul solo li am solo mooy réew mi dañoo dem ci élection sama jëm existé wul daana ko wax daf ni man lii may def nii bu ci amee la ma bëgg xam ne loolu suñu borom dogal waaye bu ma ci leen fekkee itam damaa tax ngir ngir wàllu sama askan ci gàttal daal mooy dafa am ñaari Ousmane Sonko àndal ci politique yoo xam ne pour gagné ko ci hmm. dana jafe am na ñu koy jéem nag hmm. mais ñu ko ci jéem ñaar bu ñu joxe tudd nga xam ne feeñ na <laughs> am na ñu doon sonko sonko lu bari na ci réew mi mais sonko sonko gi bu fekkente ne xol bu sell xol bu bi am ci sonko désintéressé hmm. gi nekk ci moom jub nekk ci moom dëgg gu ci moom bu nekkul ci yow boo dee sonko sonko lu bala ñaan lu war maanaam bu war bu war yàggee xaw ma lan njaab yàggee nga war feeñ ah. mooy li am mooy soo dee sonko sonko lu te doo sonko soo doxee deux pas différence bi wane ne doo sonko mooy dafay am lu Sonko mën a muñ mën a bàyyi nit mu nekk président te nga mhm. mënoon koo nekk mhm. mën a bàyyi nit mu nekk député te nga mhm. mënoon koo nekk mën a bàyyi nit mu di la saaga day wax lu ñaaw mu ñëw nga yaatal ko te nga mënoon koo nekk am xolu bi yaatu loolu vraiment jikko la joo xam ne Ousmane Sonko moo tax amaguñu ko te jàpp naa itam ci cinquante ans yii koo xam ne dina pël ba joxaat discours ci réew mi discours bu gën bi sox gis nga Sonko mooy Touba ci kanam <laughs> président Sonko mooy Touba ci kanam la noonu daal nga ko nga ko jàngatee au fond Ousmane Sonko sañ tàcc la ci réew mi sañ tàcc gis nga Ousmane Sonko bu échoué ci réew mi réew mi kenn du kenn ndax yóbbu na ci Sénégal ak gis discours koo xam ne mhm. mooy sañ tàcc réew mi mooy tey jii bu xasee bu réussir te am naa yaakaar dana réussir mhm. ndax réussir daf ci bokk mooy jikko mhm. jikko ju rafet ak désintéressé wu te ñaar yi gis naa ko jom gis naa ko jamaay ñoom nguur yi tëru leen nguur gis naa ne tëru leen mais aussi tamit mooy mën nañoo muñ lu bëree bëree bëri bëri ñaari bu amee président Diomaye nag xam nga actuellement am li mu amee ci banque yi boor xam nga ñaata la et ma jël sama bàyyi ñëw man ñoom gis ñu dégg nguur gi doo ko dégg loolu mooy ñàkk désintéressé gi mhm. xoolal jamaay fi bàyyam nekk xoolal fi mu dëkk kër ga tey jii ñu mel ni ci réew mi ñu baree bay tey jii bu bu ñu fal woon tey mhm. li ñuy njëkk def mooy jëli seen yaay seen bàyyi defal leen indi leen joxe joxe alali état loolu mais Ousmane Sonko ba fii bi muy bi muy campagne mhm. loolu alali état hmm. ba muy dal ci kaw ministre de l'intérieur dafa dal ci kawam en tant que man candidat la kon ci gàttal Sonko pour atteindre ko jamono gi ci politique. d'accord jafe na su ma doon su ma doon nag ñii door a mhm. ñu mel ne Matou Tahirou Sarr geeg yeneen gars yi. Mhm. nañ ko moytu. ci ñooñu sax bëgg naa Sonko dafay dafay suul bëgg naa bëgg naa nga ñëw ci largement parce que boo xoolee euh, ci mënu politique président Ousmane Sonko. Hmm. ñenn ñi nga xamante ne bi dañuy doog a bu ñu ko laalee rek. Hmm. dañuy fay politiquement. Hmm. nemmeeku nañ ko ci ñu baree bari damay bañ a tudd tur. waaye ku ci mel ne Tahirou Sarr gis nañ Euh, ñoom ñaar frustration bi nga xamante ne bi am na seen diggante ci jamonoy campagne yi. Hmm. parce que Seydou Sarr gone yi joxoon nañ ko bopp